non pour man <laughs> non pour man dafa am dafa am ñaari affaire mooy hmm. euh, boo amee benn président de la république boo xam ne trois mois moo ko fi dese wala quatre mois muy wër dëkk bi di tukki mënuloo ko ko empêcher mënuloo ci gis maintenant il va capitaliser si hmm. capital sympathique bi en profitant de de de euh, inauguration yooyu affaire yooyu c'est-à-dire que aussi il faut que ñu accepter xam nga boo boo toppee benn président bu def ñaari mandat en Afrique fii qui décide de ne pas en briguer un troisième mm-hmm. ah muy wër di di parce que pour man ces tournées là aussi ay tournées tàggatoo la xam nga tu ne peux pas le mm-hmm. lui empêcher mm-hmm. xam nga président Macky bi mu nee defuma troisième mandat ñun ñëpp troisième candidature posé wu ma ko ñun ñëpp dañ ko rafetlu donc nit ki mu mënoo ko jox lii rocc lii te après ils vont trouver les alibis pour mën a dugg ci ci région yi pour man c'est des tournées politico économico au revoir genre merci beaucoup xam nga c'est c'est important parce que aussi c'est un am na euh, acte bu mu posé boo xam ne ci histoire Sénégal ak ci ci ci lii yëpp buñ ko passé dans dix ans vingt ans li ci gën a luy resté moom mooy que moom mooy premier président boo xam ne dafa def loolu te loolu ay sëtam ñoom ñoo ciy gën a ñoo ciy gën a siggi donc kooku moment bi ñu koy fekk muy tukki parce que le Sénégal aussi appartient à à les au ñaata région la 14 régions du Sénégal yëpp la appartient donc un président qui se dépasse euh, d'un point A à un point B munoo ko ni pourquoi ngay dem ci dëkk bi wala ngay dem bi parce que il habite à Dakar boo ko defee rek tu commences à stigmatiser yenn kii donc pour moi c'est tout à fait normal loolu la ñuy ñaanal président bu mun a def mun a tourner vérifier ndax affaire yi teg na ko maintenant dans ça ke ku ne amul politique da ngay wax lu parce que ñoom ñoo yor état ñoo yor régime ñoo yor état ñoo yor moyens yi c'est tout à fait normal donc le l'opposant va voir benn bu doon man opposant la nekk ci euh, langue politique bi. noonu la noonu parce que les opposants aussi des fois il faut pas trop euh, les les critiquer si loolu parce que en fait ci loolu la ñuy dund. c'est-à-dire que cet adversaire lu mu teg yow loolu ngay xool. dafay politique donc bu noo fiyewu ñoom ci li ñu wax parce que ñun aussi bu ñu nekkoon ay politiciens loolu la ñu gis mais un président sortant qui qui qui qui sillonne le pays pour tàggu nit yi pour man plus. tu ne peux pas dire euh, ok c'est pas quelque chose lu mu warul def quoi donc franchement je pense que man personnellement je ne trouve pas de de problème si loolu. oui mais c'est c'est toujours bien de.